amaat mbégte ak bànneex dellu si waat nag tey nag euh, ñu indi leen lu spécial si seen marché yaakaar naa bañ ko commencé ba léegi gisuñ ko fii tey nag ñuy dalal kan euh, kooku moom mooy Cheikh Omar Diop borom bio naturel yaakaar naa ne kenn dootu ko naatable si ay li wàllu liggéeyam ñu bari xam nañ ko Cheikh Omar jóob nag toog nañ lu yàgg gisuñu gisuñ ko si média bi dinañ si waxtaan lu waral loolu ak lu jëm si wàllu fajum cosaan ak aada dinañ waxtaan tamit si jëm si wàllu ñaan ak fi jamono ju toll nii ñuy nuyu sëñ bi bu baax a baax di ko ziyaar alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah aousubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ñu ngi nuyu mboolem téléspectateur Walfadjri di nuyu àddina bi yëpp di nuy kilifa diine yi ak kilifa aada yi yëpp mbooleem alhamdulilah li waraloon toogaay bi mooy defaraat ak euh, gën a jagalaat ak gën a yéegalaat niveau bi parce que àddina bi ñu nekk tey àddina la boo xam ne euh, doomu aadama yi dañoo bëgg lu leer mhm. loo xam ne boo leen ko joxee ñu gis ne li nga leen waxoon mu ngi nii mhm. ñu teg ci seen bët mhm. loolu moo waraloon tëju bi euh, di jaamu yàlla pour bëgg àgg ci dimension yi nga xam ne fa la góor yàlla yu mat yi nekk alhamdulilah sant nañ yàlla ci loolu mhm. ba jamono bii ñu nekk ni tey alhamdulilah suñu liggéey euh, ñu ngi ci sant yàlla di ci am ay résultat mhm. yoo xam ne résultat yu yu yu fiable la yu leer mhm. ci wàllu ñaan ak ci wàllu faj nit ñi ci côté rab ak ci côté jinne ak ci li nga xam ne mooy problème doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi nekk ci jamono bii ak feebar yi nga xam ne ay feebar la yoo xam ne dafa nekk ay feebar yoo xam ne feebar incurable lu ñuy wax les maladies nga xam ne du wér mhm. yooyu ay seytaane seyaatiin yi ñoom ñoo koy def ñoo koy teg doomu aadama yi mhm. moo tax boobu bu la dalee soo amul koo xam ne yàlla may na ko ci côté boobu mhm. mu àgg mën a am accès ci ñoom mën a am accès ci feebar bi mën ngaa faju ba bëgg a dee te doo wér loolu moo waraloo ñu tëju woon alhamdulilahi rabbil alamin jamono bii jamono la boo xam ne képp koo xam ne yàlla mayut la xam-xam bu mën a jëm ci côté jinne sa faj dana dana doy waar alhamdulilahi rabbil alamin yàlla may nañu xam-xam ci côté boobu xam-xam bu bu bu leer bu macha allah boo xam ne képp koo xam ne yàlla boole na la ak jinne bu lay sonal mhm. wala rab bu lay sonal mhm. ak bu mu mënti doon insha allah boo ko indee ci ñun yàlla mën na def nga teqal ko moom nit ñi dañuy jaawale jinne ak rab mhm. di jaawale seytaane ak jinne di jaawale dëmm ak jinne am na ci ñoo xam ne jinne rab dëmm seytaane moo leen te dafay am foo xam ne bu fa àggee dafay xóot ci nit ki mhm. xóotaay bu jéggi dayoo am na si yoo xam ne bu la jàppee ci bees bees bi dafa am loo xam ne kenn benn élément rek mën na laa téye su la yàlla mayee bopp nag mën nga dem ba ñoom ñu impliqué ñeneen ñi mhm. ci yow ñoo ne bu ñu leen impliqué ci yow nag mooy waral nga mën ngay dem ci sëriñ yu bari doo ci gis résultat mhm. c'est parce que dafay am rab daf ciy bokk commencement bi mën na nekk jinne kese wala mu nekk niti guddi kese wala bu nekk cat kese mm-hmm. wala bu nekk rab kese nga dem ba yàgg ñoom ñëpp ñu impliqué wu ñoom ñëpp bu ñu impliqué woo nag su fekkee ne nag yàlla may la tawféex mm-hmm. yow mën ngaa mën ngaa dem mm-hmm. fu nekk nga dem fa soo ñaanee sa ñaan lañ lay defal doo ko gis waaye man alhamdulilah rabbil alamin yàlla may ma tawféex ci fànn yooyu yëpp bu mu ci mën mënti doon boo dikkee dinaa xam sa feebar bii ndax seytaane mu la ko teg wala feebar bi ay plante kese moo koy faj feebar bi alxuraan kese moo koy faj damay yebal jinne ci yow mu ñëw ci jinne yi nga xam nañoo la jàpp ñu bàyyi la ñu wax leen ñu bàyyi ñu bàyyi wala nan lay demee loolu man ci sama domaine lay doon bu boobaa. bëgg nañu waxtaan si wàllu nawet bi ndax euh, dañuy dañu ñu duggee si nawet gis nga waxoon nañ nawet bi dina bëri dee yi dina bëri ak euh, seytaane dina bëri euh, deewum ndaw yi dina bëri daal Cheikh Omar Diop nga nekk kilifa si dëkk bi ak fi nga toll sa tolluwaay ñu bëgg a xam si loolu tey jii ndax mën mën nga si saafara wala. waaw alhamdulillah ci nawet bi am na ñu waxoon ne ñoom gëmuñu yàlla waaye mhm. ñun gëm nañ yàlla mhm. ñu waxoon ne nawet bi dina bëri ay dee dina bëri eh, ay moor yoo xam ne dina am ci wàllu eh, courant yi ak ndox yi man loolu maa ko dindi man Cheikh Omar Diop maa ko dindi parce que dee yàlla moo ko yore mhm. te yàlla moo ne adduhooni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen kon musiba soo soo ko yaakaaree wala nga njort ko da nga war a ñaan yàlla yàlla fànq musiba bi kon si sa ñaan si sa wàllu ñaan. si man man man Cheikh Omar jóob man. loolu maa ko dindi waxoon annoncé woon nañ ne nawet bi day am ay mortel yu baree baree bare ci wàllu courant. waaw waxoon nañ ko annoncé ko. man Cheikh Omar Diop maa ko dindi. loolu man maa koy wax sénégalais yëpp ñu xam ko na xam ne sénégalais yi nañu xam ne am na ay sëriñ ci réew mi fii. sëriñ yi am nañ fii ci réew mi du du ku wax rek lu nga wax loolu la yàlla yàllay def. am na ñoo xam ne bu ñu laajee yàlla yàlla fekk ci leen ci liñ ko laaj. man bokk naa ci ñi nga xam ne su ma amee soxla su ma ko ñaanee yàlla mu def ko loolu moom dama koy wax au effort sant naa ci yàlla nag ci côté boobu bépp musiba boo xam ne mu ngi xew ci réew ma yëg ko man danaa ko wax yàlla yàlla dana ko def ma loolu xam naa ko incha allah macha allah kon ñoo ko déggandoo euh, daw si leen gaaw seeti ki nga xam ne moom mooy Serigne Cheikh Omar Diop. mais nañu gis na tamit da ngay def si wàllu alxuraan ñaan lu jëm si wàllu jaaro yi wàllu ndoom mooy muslaay lan nga si mën a wax si loolu. waaw alhamdulilah kooku maa ko njëkk a wax ci réew mi. Mhm. waaw maay borom jaaro bi maay borom jaaro bi man naa ko njëkk a wax te loolu mosuma see dañ xam nga dëgg du tuxu. Mhm. dëgg du màgget. Mhm. dëgg du sàlli. loolu moo tax man sama yëf dafay sax macha allah daa iman ndax du ma wax lu ma gëmul. du ma wax lu amul. alhamdulilah jaaro bi mi ngi fi ba tey. ñu ngi koy joxe nit ñi ñu ngi ñëw di ko jël am na si ñoo xam ne sax dañuy ñëw na ma jaaro bi ma defaraloon. damaa bëgg ñu renouveler waat ko. ñu beesalaat jaaro bi parce que gis naa ci loo xam ne mënuma koo nettali dëgg la am na ñoo xam ne seen bopp bu ñu réeree dañuy mel ni ku dof dañuy dawaat ñëwaat ut ko parce que jaaro bi boo ko amee bu yàqoo mhm. même instant bi mu yàqoo noonu sa affaire yëpp day taxaw porte di nga ñëwaat utaat ko maanaam jaaro bi si wàllu place wàllu wërsëg la mhm. ubbeeku wàllu muslu wàcc wàllu cet ak wàllu yàlla lay may tur mhm. dangay am xaalis dafay am alal da ngay daf lay yomb pour nga am dara daf la yomb loo yëngatu yàlla daf ciy def barke te dafay def ubbeeku te yàlla daf ciy def tawféex goo xam ne ñi nekk bitim réew xam nañ li may wax ñi nekk ci réew mi xam nañ li may wax kon boo gaaw gaaw yéen ñi nga xam ne da ngeen nekk bitim réew euh, borom jaaro bi Cheikh Omar Serigne Cheikh Omar euh, di leen fàttali rek mu ngi cité Aline Sow golf nekk si wetu jumaa ji euh, numéro téléphone yi 78 la 162 64 64 wala nga woote si 77 557 55 27 wala boog nga woote si 77 942 22 moom dina si dellu si waat waaye ba tey rek pareeguñ ak Serigne Cheikh Omar Diop dégg nga nu mu ko waxee ñu jëm si wàllu faj ndax soo xoolee léegi si jamono ji feebar yi bëri na lu si jëm ni jabet lu si jëm si si tension lu si jëm si li nga xam moom mooy AVC yi euh, sëñ bi bëgg nañ nga nga dimbala ñu si si si si feebar yi jamono wàllu diabète mhm. wàllu hépatite mhm. wàllu tension AVC lépp affaireu seytaane feebaru seytaane la feebaru seytaane la am na si jinne yoo xam ne jinne yu gëmut yàlla lañ ñooy gën a def côté boobu léegoo léegi jinne yi nañ ñëw ci man na ma bàyyi di ñu tuumaal bàyyi di ñu tooñ lu yëkkati loo yëkkati rek as tekk ñu ko ma a ko parce que yéen yéen a koy def Mm-hmm. am na jinne bu gëmut yàlla yoonam nekk ci soxlaam na faju rek kon ku ko am daal mun ko traité képp mu set wecc mm-hmm. bi mu da koy da koy da koy dindi mm-hmm. bu fekkee ne nag lu mel ni hépatite la dañ koy faj ba mu wér parce que lay tax hépatite bi du wér jaxasoo gu nekk cité Aline Sow bi nekk pharmacie golf mhm. boo ñëwee euh, ci biir cité bi ngay dugg boo duggee nga laajte jumaa ji boo ñëwee ci jumaa ji euh, villa 652 mooy numéro kër gi mhm. boo wootee ci 78 162 64 64 mooy numéro téléphone bi mhm. euh, wala 557 55 27 wala 942 22 23 77 557 55 27 wala 77 942 22 23 boo boo ci ootee incha allah dinañ la tegtal adresse ba nga ñëw ci jàmm Euh, li ñu leen wax nag am na ci yeneen yoo xam ne dañ koy traité di ko mhm. faj mhm. waaye jotaay bi mayewut ñu wax ko mhm. waaye lu ci waaye am ci tawat rek bu ñu oowee téléphone bu dee lu suñu domaine la nañ ko ci wax incha allah